nit ñi jàng masala yépp te jëfewuñ ci dara dañuy yàq mooy waral nga gis sëriñ bu ndaw yaakaar ko boo ko ñuuxoo ci jigéen mu doxaan la bu dee góor mu tappale la tiri yàlla ndax am na xam-xam ba munoo ko caa génnee waaye rafetalul te it bokk na sax nag ci luy yàq diine afatu diini salasun faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun yonentu sallallahu alayhi wa mu ne liy yàq diine te su diine yàqoo rek tasawuf dafay yàqu ndax tasawuf bànqaas la ci garabu diine mu ne bokk na ci luy yàq diine mooy ku jàng fiqhul islaamiya ba pare kàccoor toog ne yàlla mu ne yonentu mu ne ñu wane ginnaaw fekk la lang doon wax ne yàlla mu ne nga di ko def wa imaamun jaayirun njiit bu jeng ñépp jiital la fu mu nekk nag doonatul gàcce kii mooy geli sëriñ bi loolu doonatul gàcce sëriñ bi kii la biiraloon ñu yàq ko doonatul gàcce loolu dafay yàq diini wa mujtahidun jaahilun nga farlu loolu bëgg sëriñ bi te xamoo dara xàmmeewoo leeri sëriñ si xàmmeewoo seeni mbind xàmmeewoo seeni doxalin mënoo faram fàcce seeni wax xamoo seeni mbir yow li ngay yàqal sëriñu moo ëpp li nga koy defaral kon sëriñ su ñu yàlla bind yi ñu yàlla booleel faaw ñu xam lu leen ñi am xel yu ñaw am làmmiñ yu fasa neen leen leen di waxloo ndax wax moom déglu rek la laaj duñ ko lekk duñ ko kaccu wax déglu mën nga jeexal téere yépp te doo mën a wax yàlla mooy xool ku ko neex mu fecc làmmiñam ba su waxee xool yi giif ba mel ni ñépp la waxal loolu yàlla moo koy mayee ku ko neex ngëneel la Maawiya ak Seydina Ali bi ñu amee réeru doon woote négociation pour mën a waxtaan Seydina Ali dafa tànn boroom xel mu ñaw am làmmiñ bu ko julit dina dede xam-xam mo upp solo neen jël borom xam-xam Seydina Aliou ci respecté mbolo ak norme yi mbolo di doxé mu nangu wé jël ku ñaw xel ku làmmiñ bi neex ñu taxaw waxtaan niti maaweeg bi moye niti Seydina Aliou ñu ne kon maawiya moy jitu te Seydina Aliou war ta topp ci ginnaaw maawiya problème tabbi ba rero bobu lu def ci julit ñi dafa jéggi dayo waaye bokk na ci jàngale fiqi ñu ne réeroo bi tàbbi ci diggante saxaaba yi nang ca génnee sa ndax ñoom ñépp radiallahu anhu wa raduhu te yow xamagoo sax am nga njéggal bay am ngir man jamono nag su tollee foofu dafay baax ñu saytu image sëriñ si buy waxal sëriñ na ngeen xam ne yéen njabooti sëriñ gi yéen a ci ëppale ndax ku jël di ko joxe duma tànn man du tànn ceddo murit du tànn imam tafsir du tànn ñun ñooñu kenn du tànn Iran dafay dem ca sëriñ ba ak njabootam mu jox ko ko njiiti réew mi su jógee di seetu du ñëw ci ñun dafay dem ci sëriñ sa seet si leen yàlla suy wax ak nit ñi du wax ak ñun sëriñ si lay waxal kon ñun suñ leen fonkalee sëriñ suñ fonkee sëriñ bi dëgg la war nañu en tant que talib waaye nangeen xam ne fonk neen jëkkëri jàmbur fonku nen baye jambour mami nen mami jambour fonku nen nijaay jambour te deug deug ñun am nen askan man Cheikh Ahmed cisse suñ tegoon askan yeb di jaay muy Baye ñes mu buma mu gëm te yaakar ko fi ak fele suñ tegon askanam di jaay duma ko jënd de fi ma bokk daf ma doy I am proud of where I am from kon mbiri askan ku ko doon jaay nit mu lamb su yalla rek toge nak man nanguna te gem ne semua ñes mo raw suma mam mo man suma mam mo gën suma mam ma top ko ngir yalla mo mu rawé suma mam ma mëna melni mom wala ma bok ci topé ni ñi topé sëriñ nak du pexé du dugg-dugg du lej lej du du wax ju bari da ngay sellal sa ànd ak moom lépp looy wax wala ngay def ci moom nga wax ko wala nga def ko ngir jëmmi yàlla mu sell mi soo ko defee yàlla mooy kii fay yàlla dana la fay bam doy ma yokk ci li ma doon wax ci mbiri Gana Messere dama wax ma ni sëriñ Touba amelul kenn àq tooñut boromam tooñut moromam nit ku rafetal la ci mbooleem mbindeefi yàlla yi nit ku gënal la ci mbooleem xàq yàlla yi nit ku màndu la ci mbooleem ndigali yàlla yi ci yoon boobu la jaar ba yàlla def ko nu ko def njabootam gim jural boppam te ñu xam leen ñim yaral boppam te ñu xam leen musu ñoo dégg ñu wax wala luy gaañ ndax murit dafa amul jot boobu muridullahi moy ku nam ma dem ci yalla ku nam yalla nak do wax ci jami yalla ndax xam nga ne ka nga jëm mom mom motax murid soko fekke mu tok loko wax neex nako loko def neex nako te du dafa ñak fayda du dafa ragal dafa xol yalla mi la bind mu xam doom ya dama motax mu mën la muñal wax ne murid tay la neex ba nafeq bu jóg ne murit la fokkat bu jóg ne murit la ku tekkiw dara ku jóg ne murit la foog ne murit moom dafa yomb comme tubaab bu romb moromam na ko hello how are you oh yombewut noonu sëriñ tuubaa nelaw mayut ko lim am waaye jur yu baax la ko yàlla tànnal ñu jur ko fañ ko war a jur mu jaar fi ndaw di jaar mooy nangoo jàng am kilifa bi màggee yàlla terale ko lu mu teralee mag ñi mooy may ko wilaayatu guñ xamul fu mu yem mu indi muridee taalifi téeram mbindami jàngale ko gis nga mbiram sëñ Tuubaa mi cercle la ku ci dugg ñu xàmme la ku ci duggut bokkoo ci jël say tama for ko ba mu baax nan sëmbax sëmbax si bàmba ji taxul sëñ Tuubaa di fo di folu de ngem bu def taati neen taxaw ca làmb ja di tàccoo ko bëree ko dóorante ne jërëjëfe sëriñ tubaa taxul mu ngemboon ay mbëri làmb yooyu de kon lu ci bokkul ci mbir ñu boole ko ca du ko ca tax bokk sëriñ Tuubaa nag def na ci yiw am na ci mbaax loo xam ne jéggi na xel te lu jéggi xel xam-xam mënul koo tënk kenn rekk moo xam sëñ Tuubaa mooy ku jeex ci yàlla ba yàlla xamal la sëñ Tuubaa ku dul kooku mënu koo xam ku jeexut ci yàlla jeexoo ci yonent yàlla muhammad sallallahu Alaihi wasallam doo xam sëñ Tuubaa ndax dara jaam ci ñaar ñooñu la yàlla moo ko jox dara jaam seddu jox ko Yunus séddu ko ki joxe nag soo ko xamul xam lim joxe ki sédde boo ko xamul doo xam lu mu kon ñëw rek ne sëriñ Tuubaa baax na ndax ku ko bëgg texe waaye nag li imam malik waxoon gis naa borom xol yu sell yoo xam ne duma leen laaj benn masalaam dini waaye sumay may ñaanlu danaa leen kon am na ñoo ñoo wax dañoo war a gëm rek te noppi ndax waxtu seen cër léegi nag Cheikh Ahmadou Bamba moomu Borom jëf ju rëy jooju borom jëf ju mat jooju ndax dina jaadu yow nga ne ci toppeem nga bokk saa yoo waxee yow ngay fen fen bu toy xepp ne sëñ Tuubaa moko wax wala moko def te li gëne garaw ci feneel yalla yi rek wañi nga sen app xam nga sëriñ Touba ci am sutura sëriñ Touba ci doon jullit sëriñ Touba ci mbaax mu nekk ci biiri jullit nga ne ñëpp lekk yàppi xaj ba mu des moom mooy wàññi nga àqam ci cër bum jox doomi Adama ak jullit te bul fàtte ne dafa nangoo dem ci géej gi sonn juróom-ñaari at bàyyi soxna yi ginnaaw bàyyi doom yu ndaw yi bàyyi taalibe yu mari yàlla nga xam ne mënuñoo naan lu mooy ñu gis sëñ Touba juróom-ñaari at ngir am lu fu mu jaar ak boromam. coono boobu mu daj ngir jaam ñi su doon moom kenn rek ku texe la ndax yàlla da daf lay texeel ba pare bind la waxoon na ne yàlla bi may xamal man sëñ Tuubaa ne man may liggéeykati yonantu bi sallallahu alayhi mu ne boobu yàlla bindul aadama kon fan la nekkoon waaye su ñëwee di daj coono ñun ñoo tax ñun doom yaadama yépp nag fépp ba faw léegi su loolu amee nga ñëw di nettali fen yooyu yaa ngi wàññi ak xam cër bu mu jox jullit ndax wajjat bim jangé fan wéré den ko né lo jang mu ne buma jangé né julit yépp mbokk leen kérok la gëjë nono julit té ñi doon sëñ touba ka sosal ak booleeg bi tay seen seen ay mourid leen su bonon wala mu mu mënon na defante daf leen di beddi té histoire bind na ko xam neen ko wax ko ak ñak ko waxa fi né du lolu sax nak moma ñor ci limay wax bëgg wax rek mooy lolu fenal sëñ touba la waxal ko lu mu waxut la te yàlla rëbb na ko ko fenal fenal yonent wala yu nag ñoo gën a garaaw ndax yonent yi moom denn ne fang bañ xam ne ñii ñooy yonent yi xam nga te ministère yëpp xam ne leen waaye agence secret yi nekk ci nguur gi xamuñ leen moo tax ñu gën a danger ministre suy ñëw di nga xam ne mu ngi ñëw agence secret doo xam ndax dafa xaak sa téléphone mu ngi dégg say appel doo xam ndax sa jabar yi ngay sëyal sax moom la koo gën a garaaw wala wi nag ñooy agence secret yàlla lu ñu wax yàlla yàlla def ko ku leen tooñ yàlla duma la te ñoom lu ñu bëgg a def def ko te doo xam ne ñoom la kon fen yi nga xam ne ñu ngi koy fenal sëriñ Touba te du dëgg képp ku ko wax yaa ngi wàññi sa àq ci moom ndax sëriñ Touba du kuñ mën a yàqal mbiram ñoŋe na te yàlla ko aar dinaa ci seppi ku mel ni Gana Messere ak Bichri xam nga dem dayoo baaxul yàlla wax na ne bëggut ko wax lu ñaaw lu mooy lu kuñ tooñ nangul na la ngant ñu tooñ sa sëriñ nga wax ba saaga ndax yàlla dafa nangul kooku ngant ci alxuraan bañ naa nag ne dangay tagg sa sëriñ di xaste loolu ku ko def naa fekk nga xamoo sa sëriñ nit ku bon nga te sa sëriñ sa bégut ci yow dégg naa fan yi ku sant jaañ ci tele bi mu dafa am ku doon zikar zikar su neex doomi Cheikh Ibra Fall génn di déglu zikar si mu neex mu ne waa xool ko rek tudd turam sëriñ bi na ko tooñ nga ma dang ma yëkkati ba ci kaw nga xaayu ma daane ma ba ci suuf ngay tudd yàlla may bëggee yàlla nga may tudd su fekkee bàyyi ne kun kum neex na nga wax allah allah allah allah ba suba kum neex na nga wax bay bay bay bay ba suba dara nekkul ci Lima bañ moy nga ne allah ne bay. la ilaha illallah mune dara waru ci top lu moy muhammad rasulullah gadda mesere tok ne ginnaw yalla seigne touba gën lul du waxi seigne touba du waxi sunnatu rasulillahi te fuqaahu yeb jam neen sering Touba nak fuñ ko tuddu saga jóg niñ ko tuddé baxut way suñ ko tuddé nañ ko wara tuddé magal yalla rek mo ci top ndax dina feñ né amna na yalla bind may ko bakken xamuk mayam kon ku melni ni mesre xolal bushri bu yagut limu def bay doon tag nan len wara meuna amé cieur nan len meuna amé yar ngir meuna jeriñu ruhul adab di wax bay indi misal mu gis na Cheikh Ahmadou Bamba fu wala yu di yegg yegg na fa sénégalais la nit ku ñuul la te bàyyi pan africani euh, pan la world peace dafa ñoroon Baye jàmmi àdduna mu indi bayti Serigne Touba yu sëriñ Touba wax ne ñuul taxut sa xol ak sa xel ñuul ñuul kiiraay la rek waaye ñuul taxut nga doon nit ku nit ku bon Bichirine moom ba muy tekki loolu ne bàyyi wax na yaay suñ bàyyi si diine yaay nangam loolu jarut ko gis nga mën a wax ak xam wax du benn su nit taggee sa sëriñ soo bëggee wax ji am doole dangay tagg ka ko wax li li li li doon may wax ji doole mooy am na koo xam ne mooy cheikhul islaam mooy mooy kaasiful mooy kaasiful xam mi mooy jabrul kasri mooy xamle yàlla moo juddu woon nangam xatam bi diw ba mooy dénk leen mbàmb noonu naa ni nga wax ci baay ba pare ne wax na li ci la wax ji di am doole yàlla bi mu yónnee yonantu bugg waxam am doole daf ñu ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa tagg yonantu wax ko lu ne ngir waxi yonantu am doole mu wax ñu sax ne wa in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni kon wax ci ku wax ci sa sëriñ soo bëggee wax ji am doole doo réyal sëriñ bi dangay ngay réyal ka ko wax ndax wax ji am doole rawatina nag yow bi nga reyele sa sëriñ ba ne waliw bi mo wax ci sa sëriñ li te du dëgg xam nga lu nekk ci téré nga xam ne soo waxee ci image fanweeri at xale bu judd bu jàngee xam ne danga doon fen lan moo ko jar loolu du bëgg sëriñ Touba ndax rëy mooy desal dëgg ci dëgg te doo mën a bëgg sëriñ Touba sa xol nga rëy kenn du teew ci yàlla yóbbaale yóbbal bu emne ne bëgg sëriñ Touba texeadi mënoo ko bëgg di fen léegi nag la jamono mel dangay fen ba gëm sa fen nit ñi gëm sa fen Gana Messere wax lu rëy ci Cheikhu Tidiane Chérif damm àqam tooñ mboolem Tidiane ci àdduna bi yépp démb mu toog TFM ne dafay jéggalu waaye déglu li mu wax taalibe bàyyi dañu am yar dañu dal Hamidou Niass woon na ma man dama don netali waxe Cheikh Moussa xam nga naa fekk soo ko doonee sooy deli sa doko yek manam batay mom sartay moom bi ni ngeen ko jangé la ko jangé moy da ngay rëccu diggéene dootoo ko defati ba paré tuub toñut ñeseen yi ñeseen leen ci taalibe bay wax lolu xana da fay ni kon bi nga xasee cheikhou tidiane rek am yar ñeneen ñi ci amuñ yar dafa am waxin dafa am solo surtout ko xamne yow da nga nek conférencier di waxal Serigne Touba gis nga ponkal so koy waxal so dut ponkal da ngay wax waxi ponkal ngir nit ñi mën la deg do mëna bayyi bàyyi cheikhou Tidiane Chérif radiyallahu anhu ñew ne da ngay jéggelu di indi ben waxi Hamidou Niass ak ne talibé Baye dañu am yar ana yenen Tidiane yi Baye taalibe la ci Tidiane ya so Khalifa talibé la ci Tidiane ya Mam Maodo taalibe la ci Tijaaniya Cheikh Omar Foutiyou Tall taalibe la ci Tijaaniya Aline Harasimi taalibe la Cheikh Mahmadul Hafiz taalibe la Seydi Mawlud Fall taalibe la ñun ñëpp nga tooñ pour man li gënoon a rafet en tant que kilifa ku jàng ndax nag doo mun a wax ba ne Gana Messere amul xam-xam njëriñal xam-xam kay ak ñàkk njëriñal xam-xam waaye xam na yal na yàlla xeebal ko lim xam te dollil ko lim waroon na def dafa waroon tub waye do ñew ñëw yokkaat jaxase ñaari jaxase moy ñese ni dañu am yar ku ci wax day am dal den wax ne den ma bëgg den may estati hamidu waxam mom la concerne hamidu kenn la rek ci mbolo xamuñ sax ban Hamidu ñes ngay wax so ne waxi musaka nga netali xana kon Cheikh musaka Ka wacc mo wañi haq Tidiane te koku borom xam-xam la bu xam la ba xam serignum su tagge sëñ touba nga xam touba nit dana wax wax waliw yalla te doo ko deg soo ko déggul bul ko mal interpréter bañ jepi waliw ba mono ñew ci mi fen fen wone dang dàng diko di ko gis ñu xam ne da nga fen nga laqatu ci Hamidou Niass ak Cheikh Moussa Ka du deug du yoon cheikhou Tidiane ëpp na ñeseen yi dañoo bok ci bir cheikhou Tidiane li am kay moy suma mama Alaaji Abdoulaye ñess mo dund ci tariqa bi ba melnu ken melul yalla yàlla ko ba nit ñi jagleel ko ne ñaseen lewna ñu ne ñaseen bay ñu ne ñaseen waye mam Khalifa Niass radiyallahu anhu gisuma ku ko gëna don tidian waxuma mo gëna don tidian ñepp de dama gisul ku ko gëna don tidian nim mel ci cheikhou tidian dafa jéggi dayo kon tidian ye ëpp na ñeseniya moo dugg ci biir tijaan mu ngi mel ni jul lislaam nu mu ëppee tarixa bi rek tarixa bi may yu rëy yéeg garanti yépp ci biir lislaam la nekk muridiya ci biir lislaam xaadiriya ci biir lislaam waaye xaadiriya nekkul ci tijaan yi kon faw ñu faram fàcce yow laaloo Baye Niass laaloo maam Khalifa laaloo maam Alaaji Abdoulaye Niass laaloo Maodo kañ yaakaar tey ak ëllëg kiñ jox seen bopp kooku nga laal dangay ngay ci loolu ñu baal la ndax ku dul amul kudul mer amul way mer ta do gifalit baxut da ngay reccu li nga wax wala nga deggal li nga wax waaye do wax musiba ba xol yi tang deun yeb nakari ñëpp jaxle ñi di la ñaan yalla ñi di la muulu ñii tey suñ la gisoon lepp sa bakkan bi nga togaat ci tele bi wara jéggalu gën ñoo nakara la di sepp ci tidiane ñoy jox yar ak ñoo dul jox yar ak benn waxi tidiane bu la wax koku waxam mom la concerner ñun suñ yoon nekkul ci loolu ndax ko fi tuddu baye mu defante ko yow way suñ baye ruhu yi abal abbas nga tuddu senegal nak benn mbir fi am nit fay taxaw wax lu ko neex ne dama joom ma ngi jéggalu lu rafet la ci l'islam way lu bon la ci société moy ne kon man tay suma ma ma tal suma internet rek saga baye ñes suma ma paree ma ngi jéggalu mu jeex mais saga ba fay des faaw ñu baye caaxaan yi kon ganne mesra dal mang len di xamal ne bepp mourid bu conscience mourid bu yalla may mbëggee le serigne touba bu sel be nga xamne ni nga serigne touba da fay yella do ko bañee ben wàlliw ndax serigne touba moy ñepp te ñeppay mourid bu am xam-xam jang ta xamé selal lam jang. maa ngi lay seedeel ci yàlla ne waxi Gana Messere su koy déglu dafay rus ndax kenn du bëgg sëñ Touba nit indi fen fen dafa tilim saa yu indee fen teg ko ci sëñ Touba rek nga rus bu dee yàlla uññil na la dëgg waaye soo xamul dëgg nag gis réew mi rek nga daw topp ci xamoo lan mooy valeuru muridiya xamoo jàngale muridiya xamoo topp ak ak yàlla yi murid moo gën a métti li waye mo gëna neexit julit mete mu gëna metti julit moy amna lu war murid warul julit ni may yu murid du am julit du ko am mo murid ak julit waxin la deggin la laaj kon li may wax man nekkul ne dama ñew pour tag Serigne Touba simple because gëwma dama gëm ne waliw yalla la na loolu laa nangu falaayam laa yem suñ tegoon wàlliw yépp man Seexu Tijaan laa tànn tey ak suba te moo ma doy waaye nag kii moo la doy kii nga gëm warta tere nga jàmbur ba tudd ko kii moo doy kii laa gëm warut laa mun a yóbbu ci doya dal wala saaga kenn doomu sa dégg sëriñ Muntaxa Mbàkke yal na yàgg lool te wér wax mukk luñ ko xébé wala luñ ko djébé serigne sali wax na fi wax jo xamné ba légui nit ñi dégguñ wax ji daf né man Saliou Mbacké soufel na bopam oyofal na bopam toroxal na bopam ci kanami yalla ngir xam na ne jaam la yalla bur mu né man Saliou Mbacké waxul serigne sali waxul Baye sali waye ñun suñ koy netal duñ mëna wax mu né mom l'islam amu ak wax du wax juy defar du wax juy yak maanaam moom lijjantiwu lu dul islam wax joju wax gënut ko kawe lu dut l'islam awma ci ak defar yak, ci ak yak lepp lu l'islam luma ci man man saliw suma dund bi danaa ko ci jox bepp doomi serigne touba ak sëtam digentem ak nawlem yi dafa rafet bul ma indil benn tarixa de ñi ngi bokkulal diine chrétien yi xataa naafeq yu ñëw seen biir sax dañuy rafetal jëmee ci ñoom léegi nag yow nga ne porteur de voix nga yaay waxal yooni murid yi ku xool Gana Messere yaa ngay yàkkamtee déglu Serigne Touba saa yoo waxee fenn si Serigne Touba waxal ko lu mu waxut defloo ko lu defut seedeel ko yenn jikko foog ne yaa ngi koy tàgg te yaa ngi suufeel xàqam waliw yàlla yi dëgg rek nga mun a wax ci ñoom muy dëgg Sayo yo fene ci ñom dana leer ñi yalla uñi seen xol ne da nga fen waye ci seen ak kuñ ko suñ ko analyser dinañ xam ne da nga wañi ak Serigne Touba hakaza Baye hakaza mawdo hakaza Cheikh Oumar fouti tal walu dal waxal deug ci mom li nga xam su nga nopi kon ganna mesre, limi fenal Serigne Touba mo ëpp léegi nak soy fenal Serigne Touba mouride di la sutural di la beug jàppal la ngant ndax sëriñ du xeex waaye ku ko xeexal mu jël sëriñ du xeex waaye ku ko xeexal mu jël yenn saay nga wax konori ñu noppi ndax dañu xam ne konori yooyu mën naa nekk caaxaan buy xoob dëgg mën na tax nit ki xemem sëriñ Touba su ñëwee ba ci mbir mi nag naan dëgg xam dëgg dafa mel ni dimbale nga ko mu ngi mel ki taxawoon di saaga yonantu nine eleven ñu ko tuumalee lislaam li dugg ci diina lislaam ëpp na ñaar téeméeri junne nit den doon xas lislaam xas te baaxut waaye jur na njëriñ maanaam fen ci sëriñ si baaxut du baax ba àdduna tukki waaye dana dana dana dana napp ki nga xam ne moom àdduna fees ci bëtam ba mu jàpp ne sëriñ bi yàlla la wala wala mu ngi palaas yàlla su ñëwee nag fekk ne sëriñ bi jaama bi yàlla la jaam bu yàlla gërëm ba may ko ngërëmam mu mën a jëriñu li rek moy moy motax nit ñi bàyyi la waaye muriti xam ne da ngay fenal sëñ touba lu bari de legi nak fen yoy bo ca yeme problème mën na ñak bari ndax ku fen ci biir kër gi wa kër ga koy réglé waye so ñewé ci penc mi nak fenal cheikhou Tidiane serif radiyallahu anhu wañi akam ko da ngay aduna ñi déggul arab sax tooñ nga leen te non nga toñalé mouride yi ndax tay ko saga kilifa mu saga sa kilifa man nak yalla tere yalla ma yalla musal te yalla buma ma yobbu yobu ci ma saga serigne touba a'udhu billahi min min asheytaani rajim ma ngi muslu yalla ci lolu yalla buma dal saga ben waliw yalla yalla bu buma dal du te nak yow ganna mesere nga fen ma ñew na la <laughs> li nga wax dedet fen fen la rek da nga fen da nga sos da nga jaxase da nga wane jikkoy naafeq da nga or xam-xam da nga or histoire da nga bet serigne touba da nga nakaral serigne touba ndax ku togn walliyu yalla serigne touba nga togn ndax moy ñepp ta ñeppay mo li la doon wax dembu ma diko ci yokku dig na ñu bari naan waroo wax ne ganna dafa fet kan moy ganna lan moy ganna ba su ci haqi suma serigne fen ci xaqi wàllu yàlla xutb bu mel ni Seexu Tijaan duñ ko ne da nga maa ngi ñaan mbokki képp ku ñëw ci vidéo bi di xaste di saaga sëriñ si buñ fayu ci sëriñam buñ ko tontu taalibeeb sëriñ Touba bi xam sëriñ Touba tañ yar ko bu la doon tontu tey dalay indil alquran indil la xaddis indil la waxi sëñ Touba waaye ki nga xam ne sëñ Touba xamul ko xamul sëñ Touba moo ca konte boppam su démé mu nga nan ba mandi mu nga def lu bon tuddé ko mouridiyé ya, te mouridiyé ya sel du loolu koku buy saga da ngay xamné saga la am waxna ci suma vidéo yu passé té bu leen nexé ngeen dem vérifier dama ne man lepp lu bon luma def man la concerné duma ko bolé ci tijaaniya mukk duma ko bolé ci faydu ibrahimi na ndax faydu bi dafa sel tariqa dafa sel man nak man na bon def lu bon su boba nit ma tuddu man ta baña tuddu suma kër diiné wala suma kër sëriñ kon Gana mesere mom hmm. mo fen mom mo wax lu du sos momo moy na fekk ndax wane na boppam wax musiba ba aduna bëgg a tàkk nga toga ci mbolo wara a ne taalibi Baay den am yar Hamidou momo wo ne den la bëgg den lay estati maa ngi leen di gërëm dama netali waxi musaka di di jaxasewaat nit ñi ak musaka musaka waxu dara lu bon Cheikh musaka yu yi contane nit ñi contane lolu du deug yow nak man nga ñak am balance bo pc waxi Moussa Ka ba foog ne dafa khas wala dafa xeeb sëriñ ci Cheikh ahmed Cheikh ahmed Tidiane sëriñ te ñun sax nak den ko déggul ci Moussa Ka ku netali fen kat nga ku netali deug niti deug nga serigne Touba Baye ñes Maodo li len may wilaya moy daño fekk hadith ñu transférer ko nit ñi jëfëndiko bale ko wala waye tan mu def len walim kon ku fekk fen transférer ko yow kat nga soo fenee mbooloo nag ba naqaral leen sukk terewut a yóbbuy óom da waroon a toog wàcc ci plateau ba sukk si misa mbaxana ne tijaan yi ñoo ñu jur ñun murit yi xaadir ak tijaan ñoo jur murit yi bàyyi sëriñ tubaa xaadir la woon ponkali murit yu njëkk yi ñu ci bëri tijaan leen woon mbokk gi rafet yàlla def ko Maodo bokk ak sëriñ tubaa deret xàqan ne maa ngi jéggalu suñ mbokki tijaan yi kudul jum amul man de wax deug yalla dama joom sumeeku naa man ganna mesere wallahi tijani gën la bëgg ndax ñun bañuñ ken ñun gi nak ñepp ci bokku mourid bañu tidiane tidiane bañu mourid togn ñu ba paré nak toga ci télé bi ñu deug deug dafa ëpp ganna dafa ëpp withdraw your statement and apologize before it is too late reuy moy desal deug ci deug mëno ñëw jéggalu bay tuumalaat Cheikh Moussa Ka di yëkkati talibé bay ci bir tidiane man talibé bay xaqan la lu jaaduwut nak jaaduwut duma ko nangu Do tooñ tijaan yi ya yëkkati ñaseen yi jaxase la su ko defee ñu melni ñun ño gën tidiane te ki gën ci yalla moy ki gëna ragal yalla ben ñaseen gënut benen tidiane parce que la ngay gën sa morom ci ragal yalla top yalla kon na nga bàyyi sa tiaxani bàyyi sa dof-doflu gi te nangoo nekk nit yal yàlla def jàmm ci réew mi ak ci bitim réew yal na yàlla suturaal ñu musal ñu yàlla ñu yàlla won leeri suñ sëriñ si ñu naan ci ba màndi yal na ñu yàlla bëgguloo suñ sëriñ si te muy dëgg yal na ñu yàlla musal ci noonoo wàllu yàlla ak waxal ko lu ñaaw ñaan gii may ñaan yàlla moo ko am moo ko mën yal na ko def ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko def ci barke cheikh na ahmad tijaani sharif radiallahu anhu yal na ko def ci barke mawlaaya alhaaji cheikhul islaam alhaaji ibrahima ñas baay yal na ko def ci barke cheikh omar Touré radiallahu anhu yal na ko def ci barke imaam cheikh yal na yàlla guddal fanam te may ko wér wa ma shahidna illa bima alimna wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu